université Cheikh Anta Diop bu Dakar la ñu jëm ak fukk ak juróom ñaari étudiants yu jot seeni lijaase master 2 informatique euh, lañ doon jàng ba am ci ndam euh, système information spécialisé ak réseau télécommunication la seen xam-xam màcc euh, kilifa département bi mat ak informatique nag fàttali ne am nañ ay jafe-jafe ñoom te ku leen jàppale ñu jël docteur mbay seen laaj ak tontu dox digganteem ak Aminata Mbaare Sow Atanar Ba. il y a trois ans ñetti at. coopération francais dimbali nañu pour ñu def benn licence bu bees bu ñuy wax création multimédia mais matériel bi muy utiliser bi mu war a jëfandikoo dafa xaw a dafa xaw a am doole dafa xaw a cher donc euh, faculté bi xëy na du am euh, moyens yi pour jënd lépp li war bu ko defee ñun dañuy obligé parfois même de faire la la location de matériel pour que ñu mën a am juntukaay yoo xam ne dafay méngoo parce que ni ñuy former dañuy sañ dañu bëgg bu ñu génnee ñu à peu près ñu euh, nekk opérationnel en même temps que que que ceux qui sont en train d'être formés ailleurs